Jote iyo Jote iyo Jote iyo iyo merci beaucoup. Assalamu alaikum Barni Assalamu alaikum Barni Dès que nous Assalamu alaikum Machabi, elle est exceptionnelle. Mais Bani, Bani, Wanegansen Bopo, Wanegansen Bopo. Nous, c'est nous beaucoup. ngeen Babacar Diallo Babacar Diallo ci directeur de campagne Fadilou voilà kon comme dafa am yeneen étape yu ñuy xaar dañuy jox kàddu gi candidat bi fi nekk Vous parlez, nous le président Ousmane Sonko. Honorable Salou John, vous avez la parole. Merci, merci, merci. Bienvenue. Assalamu alaikum wa barakatuh. dégguma leen di xaar ngeen sonn asalaamaaleykum waa Bargny asalaamaaleykum la jeunesse balaa may commencé comme nañ ko defee woon Arena nañu féddali pacte bi Sonko avec Sonko jusqu'à la mort Sonko avec Sonko jusqu'à la mort merci merci Nous, nous, tous les responsables de Poste nous, nos alliés nous, nous, nous, mani président bienvenue à Barny, terre des martyrs la jeunesse de Barny a payé un lourd tribut pour procéder fille du Fille fii la ñu boobee Babacar Samb fii la ñu boobee Doudou le 2 juin ci xeex bu ñu doon xeexal porter le projet seen i épaule ba mën a yegg fii ñu leen di rendre hommage ñu ngi rendre hommage tous ces yi dee ci géej gi doon seeti un avenir meilleur te par ñi paye un lourd tribut Cumber kami dau erti lenyunya ke empat jur rahman jen Nungan antar rahman kesongko Nungan terang roh amaz Wai bayi Dengan mokan rumah Naku gizli Hamne fi kata gilerna Yen peron jomai fai asengkan si prusai siapa ni Donka amunya khalnya kerana dia dia gendigai bih waaye cette fois-ci quatre-vingt-quinze pour cent bëgg. te gars yi mën na nekk de président Sonko dafa lancé benn challenge. jërëjëf. merci merci. moo leen tere mbëkk moo tekkil espoir moo tekkil yaakaar. wax ngeen dëgg jubóo leen may leen ma yëkkali jërëngeen jëf merci merci mani mani mani mani bar ñi bar na le département de Rufus nañu ñoo nekk les parents pauvres des régimes précédents bari ñi bëgg ndaw ay liggéey bëgg ngeen si loo leen jàpp waaye soxla leen ay industrie polluante ndax ñun ba fii loolu la ñu am si nguur yi bari ñi avancée de la mer sonal na ko bari ñi problème environnement ay solution bëgg ngeen mbëkk donc loolu nag bu ngeen mooy ñu jox une majorité écrasante à Pastef ndax ñu mën a mettre en œuvre la vision Sénégal 2050 te bàyyi nañ ko seeni loxo incha allah jërëjëf. jërëjëf kon ki ngeen doon xaar mu wër Sénégal dugg tey département de Rufisque. la def a seulement une heure de temps temps minutes de notre départ avec leen parce que espoir du Sénégal espoir de la jeunesse celui qui porte le projet Vision 2050 le président Ousmane Sonko le

le président de la population de Assalamu alaikum mbokki Barni. merci beaucoup. merci beaucoup pour accueillir bi. nga Bienvenue à bettuñu ci parce que yàgg nañ fee la campagne y a sixième campagne électorale bu Pastef te ci campagne électorale yëpp ñëw nañ ci Bargny di rafetlu taxawaay bi di ci félicité le niveau organisé de la section communale bi ak coordination départementale bi ak alliés yi leen jàppale temps bi gàtt naa mais di ngeen ma may ma aborder ñaar ba ñetti thèmes yu gàtt fii te jàpp naa ni ay yitte yi ay yitte yi waa Bargny la bu ci njëkk mooy napp gi parce fii dëkku ndegu la te ku wax ndegu li ci ëpp bokk wax mool wax naa ko bi ñu demee Mbour ak ko bi ñu demee Ndar waaye xam ngeen ni weer wi ñu nekk muy weeru novembre ci la accord de pêche yi nga xam ne moom moo ñu lii ak union européenne jeex normalement madame le ministre de la pêche am na lum mu ci war a wax ci conférence de presse xaw ma ndax tey la ko def wala suba la ko waroon def waaye ci gàttal.

mooy mool di jël gél di jël gaal naan maa ngi dem def émigration bi Sénégal di dox dëgg ñi ëppoon ñi ci ñi ëppoon alal mool yi bokk nañ ci ndax mooy liggéey boo xam ne dangay ngay ñëw da ngay jaay léegi am loo yóbbu sa kër boo noppaloo tuuti demaat géej dellu si am lu ko raw kon suñu demee ba mool di jël gaal gaalam ji mu daan utee jën naan maa ngi dem émigration dem fekk jën googu fekkatuma ci géej gi loolu nag jàpp leen ni bis ni ngi tey jeex na Sénégal ña ko doon def ña ko doon def bëgguñu réew mi bëgguñu waa réew mi ñaareel bi ma bëgg a waxtaan tuuti mooy la jëm justement ci immigration clandestine waaye balaa ma ciy dugg dinaa masawu waa Bargny ci li fi xew ci at yi nga xam ne Bargny dafa bokkoon ci les grands pôles de résistance ci li nga xam ne bëggoon nañu faagaagal projet bi fii ci Bargny yéen ñi ndaw Bargny magu Bargny ñëpp a taxaw ne lii duñu seetaan ñu faagaagal ko kon ma rendre leen hommage waaye rendre hommage aux martyrs jaale leen waaye dalal seen xel ci lenn mooy képp koo xam ne loxoom dàq na ci li fi xewoon mooy li nga xam ne moo waroon assuré kaaraange sénégalais yi ñu jël ko wëlbati ko di ko dal ci kaw sénégalais yi bay bakkan rot ci képp ki nga xam ne yaa doon joxe yooyu bu soobee yàlla di nga layoog sénégalais yi loolu bokk na ci bokk na ci li war a tax ñu am majorité bu baax assemblée nationale

Premier président a été de 50 hectares, le ministre a été de 25 hectares, le gouverneur a li ñu war a jot ci liy jóge ci cimenterie jot nañ ko su doon mairie yi jot nañ ko kon dinañ mën a gën a defar dëkk yooyu te dafa mës wax ni état suy exonéré mooy su ne day baale impôt mën na baale impôt yi nga xam ne moom moo ko moom état bi mais impôt yi nga xam ne commune yi ñoo ko moom état bi amul droit di ko baale mais état day signé ak Sococim convention

yóbbaale bu ñu ko xampoon Bargny te yàlla jox leen bu baax bu dugg Bargny Bargny dina dina soppi ko ci gaaw a gaaw loolu bokk na suñuy engagement kon kon li ma de la jeunesse sénégalaise wax ko waa Bargny seen avenir mu ngi fii ci réew mi li ngeen fi mën a am mu leen ko am beneen furul fii waaye day ànd xaalis kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey bu ñu ñëwee teg ay programme lii ci mbay mi lii ci maraîchage bi lii ci napp gi ak yeneen ak yeneen yéen la jeunesse sénégalaise amul dara du ngeen ci war a xeeb ci que loo gis rek dafa am fu mu commencé man mii di ak am fu mu commencé keneen ak keneen noonu. parce que lu nit fekk ci liggéey fii rek. Ah, bu dee da nga liggéey bu gën a bu gën nga gis say mbokk am di jàmm ba pare am looy def si poos sa poos loolu lan moo ko te boo nekkee ndaw nag am 20 ans 22 ans 25 soo commencé liggéey mën a yoroon sa bopp mën nga am nag ambition ni dans 5 ans fii laa bëgg a jëm dans 10 ans fii laa bëgg a jëm bu may am 35 ans bëgg naa am niveau bi am sama kër. am sama auto am sama nii am sama lële noonu la ñuy tabaxee réew ñun nag bu ngeen ñu toppee ba ne dañ du yàqkat yi ñi nga xam ne pendant soixante quatre ans jox nañ leen réew mi defuñu fi dara su ngeen jeunesse sénégalaise la ca des nag nag jox ngeen président Bassirou Diomaye Faye da ngeen ko jox xaaju pouvoir parce que ku yor présidence de la république yor nga pouvoir exécutif waaye mënoo voté ay loi mënoo voté budget kon kooku mënagul gouverner moo tax juróom benn weer yi woon na ndax yoruñu woon assemblée nationale

dina ko ay wañu dem bu naree jàdd nak ñu ko sëñ bi dellu si mais mosuñu leen ne jox leen ni majorité pour ñu bloquer réew mi mais ko la jox su ngeen ma joxee majorité ak yo dootul naw salaire yi dootuñu ko fay ko ko bëggul réew mi ñooñu opposition personnelle la ñuy def moo tax le 17 le 17 ñooñu le 17 xam nga lu ma bëgg. xam ngeen ma bëgg rek xam ngeen lu ma bëgg le 17 enjeu 17 bi du am rek am majorité mais enjeu le 17 mooy am na benn xeetu politicien yoo xam ne dañu war a yóbbu à la retraite barki démb barki démb dama gis Amadou Ba Amadou Ba barki démb dama gis Amadou Ba mu dem fële ci Fouta ne leen bu ngeen votelee pour man dinaa régler problème mu Fouta waaye yow nekk nga premier ministre nekk nga ministre des finances pendant 12 ans réglé woo problème mu Fouta léegi nañ la jox député pour nga na problème mu Fouta xam nga loolu xam nga loolu waxu daanu sax saret rawul loolu moo tax xeetu politicien boobu les fonctionnaires milliardaires ñi nga xam ne jox nañu réew mi ñu ñu tayle ko jaay géej gi jaay or bi jaay zircon bi jaay pétrole bi jaay gaz bi jaay suuf si ñooñu amatuñu pour taxaw di laaj baatu askan wi moo tax il faut ñu sanctionné rek yi waratul nekk ay 54 pour cent ay 58 pour cent tii bari li ma ko bëgg mooy gën saa néew quatre-vingt-dix pour cent gars yi xam ni waa Bargny fi ñëwoon fa ñu nekkoon ña nga fa bañ la dëkku ngor la dëkku njub la dëkku liggéeykat la loolu dafa war a feeñ ci réew mi kon ñu leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah